Abdoulaye Diop la. Abdoulaye PCS bu ASC Diso. président commission sportive. ASC Diso ñu ngi ñëw si esprit bu bu bu bu positif. vraiment parce que instant bi suñu ni numéro un mooy que ne jël coupe bi. waaw malgré que am nañ ay départ. am na tamit aussi ay arrivé. waaw parce que ak Covid bi ak cas yi affaire problème yi doon dégg naa ne temps dina am ak du am ne temps am dina am ak du am yooyu daal moo xoon perturbé lu bëri daal. ba ay jours yu bëri daal di dem. finalement après si naan jot information ne ne tànn dina am. Mhm. moo tax affaire yi xawoon nag difficile trop si ñun. Mhm. mais finalement am nañ ay arrivé aussi. waaw effectivement noonu la demee sax. Mhm. dafa équipe bi dafa ay jeunes rek ñoo si nekk peut être boo gisee sax da nga gis si ëpp. si ëpp quoi mais dara affaire yi moom. liggéey la rek quoi amul ay xale amul ay mag. waaw non ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi ñu ngi liggéey liggéey xam nga liggéey rek moo wóor. ñu ngi siy liggéey te yaakaar na ne incha allah année bi sunu année la. ak lu nouveau coach noo leen ko gisee. ah non baax rek bien parce que moom heureusement sax moom coach bu min zone bi la. Hmm. waaw malgré que ne dëkkul si zone bi mais coach bu min zone bi la parce que yoroon na fi ASC Pastef. waaw min na zone bi bu baax waaw nekkoon na Pastef ñu koy wax Pépé quoi moom min na zone bi bu baax stade bi wax dëgg yàlla ñu siy kontaan di ci di ko rafetlu daal wax dëgg yàlla kontaan nañ ci rafetlu nañ ci te aussi tamit ñu ngi ñaan yàlla bi kay si njëkk a jël coupe ah. waaw ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax maa ngi tudd Pierre Mendy gën ma xam ci Pépé ma jógee ASC Disso bu Guédiawaye ñëw pour liggéeyal ASC Disso bu Malika objectif bi mooy li ma booy léegi benn trophée lañ teg zone bi di ko xëccoo su ma sañoon dama koy jël mais du ma ne forcément dama koy jël mais damay liggéey nak luma fay jéem yob dina xol ci samay jour pourcentualité li ñu am ma jëm ci liggéey ñom li ma ma jëm ma wuti ko waaw zone 11 nak du ma ne xaw ma ko du ma ne xam naa ko parce que yor naa fi équipe benn parce que maa ko doon 2018 diisoo bi dajewoon nañu ñu am lu def ñun ak ñom mais li may ñaan daal mooy samay match moo koy gagné pour mën yob équipe bi de l'avant parce que équipe da fam luñ lu ñu soxla ñoom bu ñu demee ba jël si ma recruter ma mhm. parce que dañoo am yaakaar ci man mhm. te yàlla bu yaakaar boobu tas. xanaa ma dama ñëw pour jëli trophée mhm. mais jël trophée foog ñu liggéey ko du ay wax rek koy jël je suis le coach d'accord maa ngi joxe tactique yooyu mais ça reste aux jours tam liggéey ci loolu pour mën a gagner trophée parce que le seul la course mënul gagner trophée waaw parce que loolu rek mooy football ah football moom gars yi dañuy wax ne football jafewul il suffit que joueur bi am entente di déglu rek mën na sori ci mais soo amee yoo xam ne dañoo tëtuj parce que da ngay gis yoo xam ne tactiquement dañoo dañoo am joueur yoo xam ne tactiquement dañuy discipliné mais damay ñaan yàlla nag samay joueur bokk ci joueur yi discipliné rek suba liggéey bi dina kon xam naa ni bu bëri naa jour yoo xam ne miinaguñ seen tig bi dinaa fexe di am ay match au niveau de la stade su ma ko mënul am dem Amadou Bari wala Njaaxeem pour mën ñu mën a adapté wu ci seen tig bi parce que gis naa stade bi dugg naa xool naa mais leen rek laay déploré manque de grandeur stade bi rek laay déploré parce que taxaw di seetaan football dafa métti loolu rek laay ñaan euh, maire bi dëkk bi su ma ne dafa fay gradé mu defal ko population bi